bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa maulana muhammadin alamin wa ala alihi wa saxaabatihi algurri almayamin wa ala xayri xadimihi dil xabli almatin wa ala man iqtafa athaarahum ila yawmi ddin ba ko julli di asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. gannaaw bi nu santee sun borom subhaanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam noo leen di nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi ñaan sun borom boole nu defal ak njëggal ak tawfiq gannaaw loolu nag tomb bi ñu war a waxtaan tey allah dafay jëm ci ahamiyatul ilmi wala amali bi solo xam-xam ak jëfi xam-xam xam-xam dafay lu am solo lool ci dundu doomu aadama rawatina dunduk jullit moo xam muy dundu tayam wala dunduk ëllëgam ndax doomu aadama mënta dundal àdduna lu may daf ko teg ci kaw xam-xam lu da ko tabaxi xam-xam waaye mënta jagal itam dunduk ëllëgam lu may daf ko waajale xam-xam kon dunduk eh, xam-xam mooy jagal dundu tey waaye xam-xam mooy jagal dundu ëllëg ndax nit ki mënta jaam yàlla taxamut mënta ragal yàlla taxamut am solo gi xam-xam am solo tax na suñ boroom jëflante bi mu njëkk a jëflante ak doomu aadama ci xam-xam la tegu ndax bi muy wax malaaka yi naan leen bi muy wax ne ne na fàttali ko ba nga xamee sa boroom mi nga wax ak malaaka yi den wax ne am naa kat ku ma nar a defi mu doon sama xalifa ci kaw suuf nekkal ma fa malaaka yi ne ko mu ndax dangay dénk suuf si koo xam ne dafay yàq suuf si ak di fa tuur deret te ñun say jaam lañ yoo xam ne dañ lay jaamu di la sellal di la màggal te duñ la moy mel ni wax jooju dañ cee dañ cee bëgg a junj ne ñoom ñoo gën a yay ci nekk xalifa yàlla ci kaw suuf ñoom ñu mel noonu waaye sunu Boroom xam naa lu ngeen xamut mu ne ba jëmmi jamono mu xamal aadama lam ko xamal taxawal ko taxawal malaayka yi ne leen su fekkee la ngeen wax dëgg la ci yéen xibaar leen ma yii yi ci kaw suuf lu ci nekk lu muy jariñ nu mu ko tax a jóg malaayka xamuñ ca loola dara mu ne nag aadama xamal leen ko aadama xamal leen lépp ci nekk na mu la ko tax a jóg eh, su doon ne xanaa waxuma leen wan maa xam li nëbbu ak li ci kaw ak ci suuf loolu day wane ne kon xamal gi mu ko xamal loola moo tax mu def ko muy ko taatam ca loola ne kon nit ki mënta sàmm lu mu xamut mënta jariñoo it lu mu xamut xam-xam doon lu am solo lool ndax mooy tax a a ragal yàlla ndax suñu boom nee na yàlla ñi ko mën a ragal mooy ñi ko xam inama yaxsha llaha min ibadihi ulama ñi ragal yàlla képp ñi xam yàlla képp ñoo ko mën a ragal wala boog ñi ñi mën a ragal yàlla mooy ñi ñi am xam-xam loolu day wone ne kon e, nit ki munta ragal yàlla te am xam-xam néew ci moom loolu dana ko gën a dëggal la Sëñ waxoon ne inna alladi lam yaxsha rabbal aalamin laysa bi aalimin walaw afnal funun ki ragalut yàlla su jàngoon fànni xam-xam yépp jeexal téere yépp te ragalut yàlla nee na kooku du boroom xam-xam des ko jàpp boroom xam-xam wax ba tey ne ci li wane am solo xam-xam du caagi ne xam-xam yépp am njariñ waaye dafa am xam-xam bu am njariñ am na xam-xam buy lor <coughs> loolu dañ ciy waat waaye mu ni daal xam-xam bi am njariñ mooy bi jural borom ragal yàlla jural ko ak toroxlu jural ko dëddu àdduna jural ko bari teggin jural ko wàcce boppam ak suufe xam-xam bi laabal sa xol notal la sa bakkan teelaa mooy yàlla nee na xam-xam boobu mooy bi am njariñ neen xam-xam nag su la juralul lii mënut a dox diggante nit ke sawar su fekkee ne melu na war a mel lias bi lay taala fa naafiul ulumi aydan ma afaat saaxibahu xashyata xaaliq al ibad wa dulla wa zuhda wa kasrat al adab wa liftixaarin wa tawaaduin jadab wa taxara al xalba wa nafsahu xama wa mimma aasi xaaliq al wara mana amma allati lam yaku hakada falam yam naa gadan min naa rabbina naam del waxaat itam xam-xam mooy bi fàggul borom ragal yàlla ragal yàlla googu nag kum néewut ci moom nee na ku yët ku réer la te ku yedd la donte nag jàng na lépp xam-xam daal ba am njariñ mooy bi la xamal sa ay sa ay bi bopp nga xam ko saafara ko al ilmu maktasaba xasyatal alim fa man xalaa minha fa jaahilun mulim bal naafiul ilmi alladi taallama xad allama fatan uyubu nafsihi fa alima bokk na li tegtale am solo xam-xam mooy xam-xam rek moo mën a jox doomu aadama qiima mooy tax mu tekki dara mooy tax mu am tedd nga itam benn chanre dafa waxoon taallam fa laysa almar'u yuladu aaliman wa laysa axu ilmin kaman huwa jaahilu fa inna sagira alqawmi wal ilma indahu kabirun ida ruddat ilayhi almasailu wa inna kabira alqawmi wal ilma indahu la ilma indahu saxirun isa daarat ilayhi lmaxaafilu mooy na nga sàkku xam-xam te jox ko yitte ndax kenn du judd judduwaale xam-xam waaye nag ki xam ak ki xamul nag du njàmb mukk ki gën a néew ay at ci mbooloo mi gën caa woyof mbubb gën caa niru ko ñàkk solo te fekk xam-xamam ca moom nee na kookee day waxtu wa wuñ wute ci masa masaa'il yi ba dellu ca moom ku yëkkati ko lay doon ku kawe lay doon ku am xiima lay doon waaye ka ëppi at dàq caa gomewu gën caa fés te fekk xëmut suñ wutee ca masaa ba delluwaat ci moom ku tuuti lay doon ku suufee lay doon kon xam-xam mooy joxe xiima mooy joxe itam tedd nga ak daraja bokk na ci itam li ñu setantal ci ne ci liy tegtale solos xam-xam su ma dafa digal ay jaamam ñuy dimbalante te dimbalante nag ga ca gën mooy dimbalante ci luy loo xam ne boo ci dimbalante muy yokk boo ci dimbalante muy yokk euh, te xam-xam képp lañ gis si loo xam ne loo ci gën di dimbalee muy gën di bari di gën di yokk di gën di kawe gis nañ ne nit ki lépp lu mu am su cay dimbalee day wàññi ko ba mu des xam-xam xam-xam loo ci gën a dimbalee muy gën a yokk di gën a bari loolu ñuy jàngale ñëpp xam nañ ko loolu benn chant di wax naan xaliliya afnil umra gayral mumaddadi ala nashabin in minhu waasayte yasdadi wala tafniyanna al umra fi jam'i ma ida baxilta bihi tuzmam wa in jutta yan fadi sama rekk sama xarit waaye na nga dimbalante ci lépp lu am njariñ loo xam ne soo ci dimbalee muy gën di yokk na nga sag dund ci sàkku loola waaye bul jeexal mukk sag dund ci sàkk loo xam ne soo ko amee it soo ca nayee ñëpp ngàññi la soo tabee mu jeex loolu alal alal soo ko amee soo ci nayee nit ñëpp ngàññi la te soo ca tabee mu jeex waaye xam-xam na lu ci gën a tabe muy gën a yokk ba tey bokk na liy tegtale solus xam-xam mooy xam-xam dafay dundal xol di leeral bakkan di sori lëndëm lëndëm gi tàbb ci xol mën koo jural euh, gumba lëndëm googu xam-xam daf ko daf ko daf ko ñor da koy dindi loolu la boo xam ne Sëriñ Tuubaa nettali ko fal ilmu yuhyi ba man taallama yunawiru sa kama yajlul ama xam-xam dafay dundal xolub ki koy xamlu di leeral bakkanam di ko dindil lëndam nga koy jural gumba moom xol bi keneen ne al ilmu fihi xayaatun lil qulubi kama taxyal bilaadu ida ma massaha al mataru wal ilmu yajlul an qalbi saaxibihi kama yujalli sawaada zulmati al qamaru xam-xam ci la dund xol nekk ni am réew di dunde ci ay taw suuf ni ko taw di dundale suuf su la gën a moo lay gën a naat moo lay gën a dund waaye xam xol xol bu xam-xam ëppee it mooy gën a dund xol ba ca des moo koy gën a moo koy gën a naat mu ne xam-xam dafay dindi lën na mu xol ba teekoo gumba ni weer wi di dàqee lënn mu guddi gi saa bu feqee kon xam-xam lu am solo la kenn waxit ne bil ilmi tax qulubun xattu ma arafat min xablu wal farqu bayna al xaq may ni wala ilmu li nafsi nuurun tastadillu bihi ala alxaqaiqi misla nuuri lil ayni ci xam-xam la xol di dunde yoo xam ne lu jiitu xam-xam ba xamutoon liy teqal diggante dëgg ak waaye xam-xam ci la bakkan di tegtaloo ci leeru xam lay tegtaloo bu a xam dëgg nit ki mën ta tànkam kon ni di tegtaloo ci leeruk zaahir ni la xol di tegtaloo ci leeruk xam-xam xam nga bët bët kese kese du jis lu dul ci ak leer soo duggee ci sa néeg guddi tëj sa bunt fay sa làmp dootoo gis dara kon ci leer ci leer lay mën a gisee faaw nga taal làmp door mën a gis xam-xam yi noonu la mel faaw day tàbbi ci xol xol door mën a gis dëgg door mën a xam dëgg kon ni bëgg tegtaloo ci leeru zahir ni la xam xol di tegtaloo ci ci xam-xam ba mën a xam fu muy fu muy jaar Sëriñ Tuubaa wax ne itam xam-xam ak jëfe xam-xam te mooy xam-xam ak diine rek ci la deese rawante ci la deese gënante ku la ca raw moo la raw ku la ku la ko ëppale moo la gën wa alam bi annama tafawutul wara bil ilmi wa diini yakunu fasbira wa bihima yafdulu man xat fadula laa bintisaabihi liman xad i'tala min jihatil ansaabi ummin wa abi fa fiihi majtahid ma ta'addubi na nga xam daal rawanteeg bindeef yi ci xam-xam ak diin rekk la nekk nekkul ci leneen nee na ku la gën ci yooyu yar la la gëne ku la rawet ci la la rawee waaye nag kenn du gëne kenn ci wàllu askan gu kawee ci wetug baay wala wetug yaay askan wu baax ab yóbbal la ci ku bëgg a dem waaye ab yóbbal nag kuy deme ko tax a jóg waaye soo ne soo amee yóbbal ba noppi na faax taxut a jiitu kenn kon bokk yu baax yóbbal la waaye waaxu mooy tax a àgg waaxu nag mooy xam-xam ak diine mu ne kon nanga farlu ci yooyu yaar te boole kooku teggin ngir nag yooyu ci daj yëpp ci am yam sol yi ma tudd yi ma tudd moo tax Sëriñ Tuubaa soññ lool mboolem ñu ci moom ñu farlu ci sàkku xam-xam ak di ko jëfe waaye moy moytandiku loolit doy dal xam-xam ak woyofal ko ak won ko gannaaw waaye digle ñu won gannaaw képp ku ñu koy woyofalal mbaa mu ñu koy doya dalal fasaari'u lil li wajhi dil jalali xaasidina xabla tasadduri wal infiraadi bi nafsi fi tamaadi bi daati itiqaadi taku fa anwaar itibaail haadi yéen ñëpp na ngeen gaawantu bu ne yéen ñëpp nag bawut kenn góor a nga ci jigéen a nga ca mag ca ndaw a nga ca dangeen ngeen njëkkati yéen ñëpp dem sàkku ji xam-xam te sàkku na jëm yàlla dong tax bu leen fas dara ci gannaawam lu dul ngir jëm yàlla kepp loolu nag lay jiitu ngeen di gongi kooka wala ngeen di beru di jaamu yàlla ndax soo teelee beru te fekk yóbbal bi war a jiitu ci xam-xam jiituwut su bakkan ñëwee jekku la seytaan ñëwee jekku la leneen lu ñëw ca yay gàllankoor yëpp jekku la kon faaw xam-xama jiitu ndax neen lëndam yi làqatu ci pas-pas bi daay yi dafay dox diggante xol bi ak leerug njub leerug topp njub moo tax mu ne ku leen di tere xam-xam <coughs> mbaa mu leen koy doy dal da xam tereem googi kat ci réer képp leen xëcc jëmee mën <coughs> man nahaakum an taallumi fa nahyuhu ila dalal yantami waxaat ne képp ku leen tere xam-xam sooy wër xalifa iblis ci kaw suuf sooy sooy wër xalifa iblis ba gis koy tere xam-xam neen jàppa ci loxo ma googa wa man nahaakum an taallumi fa huwa xalifatul lainil mujrimi mooy ndax képp ku la tere xam-xam jamono ji nu tollukat woo na ci bidaa bu ñaaw ndax jëf su tegul ci xam-xam faw ak yàq tàbbi ca id kullu man fi dha zamani manaa min attaallumi fa innahu daa li bidaatin shaniatin itil amal illam yakun bil ilmi shaabah wa xalal moo tax mu dénk mboolem ñu aj moom dénk boo xam ne dang ci déggee ne ndekete woyëfalu sàkku xam-xam daa wax ne yéen murit yépp na ngeen maase xam ne digal naa leen ngeen dem sàkku ji xam-xam ku ci dégg sama dénkaane bi te jëfe ko jaanam wàcc na sama jaan wàcc na ku ko ci dégg na te jëfewoo ko loolu ca mën a fekk ëllëg bul yàdd kenn ku may sa bopp ni li ma leen digal ngeen ko ca xam-xam mooy lu ngeen wérali seen pas diine yi taw mooy tawxiid ak la la aju ci pas-pas lépp la koy xamle ngeen jàng ko ak lu ngeen wérali seen jëfi diine mooy la at ci la la at aju àtte ibaadaat yow muy fiq ak la ci aju ca lépp ngeen xam lu ko mu ne yooyu nag képp koo xam ne xamu ca dara te demul ci ko ko xam mu laaj ko ko donte ci làkk wi mu dégg la koy xamale xanaa muy doxee su coobareem rek ne bis bu daje boroom dana perte kon ku ne xam ne wooyu fët saako xam-xam yemu ca waaye ngir nag dimbale xeet wi tax mu taalif ay téere yu doy sëkk luy xamle lool te da ko digge woon lu jiitu fekk dafa déggal ay taalif yëpp ne na ngeen farlu ci saako xam-xam rawatina laaj ci wàllu pas-pas ak tawxiid ak atee ak koor ak yu ni mel daan yooyu nag téere yéen ko jàng digg naa leen daal leen ko taalifal lam nu digoon def na ko bu dee ci tawxiid nu ñuy wéetale yàlla mu taalifi lu doy sëkk mu waahibul xudus ci la bokk alxidmatul mutahara ci la bokk fathul ghaniyil mughni ci la bokk bu dee fiq mu taal ci jawhar nag na mooy nañ la jaamu yàlla mu taal ci jawhar nafis sulus bi njëkk ci tasawdu sixaar ak sulus bi njëkk ci tasu subaan ak yeneen xitaan yooyu wesar yu bari bu dee nag wàllu tasaw na nañu ñu fexe ba defar xol ak jikko mu taal ci masaalikul jinaan mu nawiyu sudur ma xaalixu niiraan ndax ju xasal xaaj xuqal buka ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon su fekkee ne daf ñu digal saako xam-xam ba noppi wutal nu jumtukaay yu ñu kon wàcc na lu ca des ci ñun la dese euh, su ko defee nag kon ñu xam ne moom it diiru nekk sa bàyyi jàngale dara jàngale laataa yor mu di sosu dafa yor daal di jàngale ba jot ndigal ci waroon ci soppi mbir ma dolli ca tërbiya tax ko bàyyi jàngale ñim daa taxal ganaar jolof yëpp ñëpp daa leen jàngal téere yi mu taalif bi ñëwee njaar yi yëf yi xat nag amatul jot ga mu jàngal ci tomb ki rëdd di ko laar ci wala fi leer nañu kon daa soppi méthode bi muy jàngale waaye mu su jàngale kon nag bu fekkee dafay sax ci jàngale samp ñuy jàngale sampi daara digle xam-xam taalif ci téere kon doy na ab sëkk ab soññ ci ñu xam ne kon xam-xam warugar la wu ñu war a taxaw bu baax baax suñ desee insha allah gën cee yaatal yaan suñu boom bool dimbale wala defal tawfiq xiir nu ci njub te saxal nu ci te def nu dëgg dëgg dëgg dëgg taalibe Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa nangul suñu taalibe wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillahi rahmaani alif lam